tey Pawlish Mbaye dafa bëgg génne li nekk ci moom. Mm. ah déjà déjà bi. Hmm. chaîne bi ci ne. ñëpp laay seede tey bëgg naa bëgg naa ñu waxtaanee ko ci kanam tuuti. ñëpp laay seede tey. Euh, euh, talent bi talent bi ne ci yow. <laughs> talent sa bopp bi ngay xool. fii nga xool caméra bi non <laughs> <laughs> sexy lan la yàlla bu la neexoon bu la neexoon yàlla bu la neexoon. yàlla bu la neexoon bu la neexoon wala ndiir wala mbaa nga wala mbaa nga papaaya waaye yàlla maa dem yàlla e waay yaay lay yàlla mu la neexoon mu la neexoon yàlla mu la neexoon nga teg ma pompali nga teg ma solom waaye yàlla nag ma dem ba am ma nekk am ne am am adama am soroy am isilo am leebur ak sama mi yàlla bu la neexoon bu la dama bombali muus fii nag laay daggee ba ci kanam tey nag damaa bëgg nag tey ngeen xam sama talent ni ma amee école bi dafa sax dafa ngeen di xam man maa mën a way tey pareegu ma jënd Cheikh tey rey kaay leen sa mën a wàññi fan la ne woon man man lii mosu koo gis yow. parce que léegi damay noppalu sama xel dafa dal dama ko wax ci am xaalis <laughs> te loolu xel la xool Cheikh Sani mu leen xel ma dal. dëgg la yow te ba ma koy xam euh, tànk yi dafa xaroon. kan Mbaye. tànk yi dafa Mbaye yow kaay. Mbaye kaay Mbaye kaay non mu wax nii moom foofu ñu déglu. kaay kaay kaay mu leer. ngay ni koy xam. ba may xam mbay mi. Ah. loo xam li nga waxoon. waaw xam nga tànk yi. Hmm. tànk yi mu ko cee rof karité. waaye jabatul nit xoolal mbay mi ngi mi ngi gën a jokkoo yaa gën a rafet. Ah, non non non. non Pawlish <laughs> <laughs> gars tey nag émission bi bàyyi ay tànkam ku ne ku ne am naa lu ma la xamal. am naa lu ma la xamal de waaye am naa am naa lu ma xamal bàyyi rek. waaw toogal rek ma wax li ma la xamal yow. ok yow. Hmm. léegi nag. ok. <laughs> wala plateau yi maa moom tey. non ak Ijeer. tey sama xol dafa seet trop Cheikh. dama xol dafa xol dafa damaa ngi plateau bi rafet. bul jooy de. damaa dugg seen plateau yi barke Mouhamad dama ci gis ay suuf mais fii amul benn suuf. non non non man du ma tricher man li li li nekk ci ma laaj su ma doon beneen télé moom ku suuf dama koy wax. waaw ay plateau bi yaay ay xale. ay xajam day tàng te man ma tàngaay parce que damaa ñëwee froid ñëwuma froid man lii laa bëgg a ñëwuma chaud froid laa ko. ko xale yi rafet. nice. yaay yàlla. te loo gis rek man damaa bëgg lu yaaññi. damay découragé ki ni ma gisee nii xale laa mais damaa bëgg lu damaa bëgg chaîne bu rafet. moo tax en tout nga di yokk. man man gëm naa ne di nga yokk. dëgg la day yokk waaw parce que uh-huh. euh, yàlla dafa bëgg kuy reconnaître. dëgg la ah. dafa sa benn vidéo boo xam ne vidéo dama ko seraan sama xol sedd. waaw nga ni ndeysaan bi may xale. ah ay dànq laa daan lekk. bu ko jaayaloo bu ko jaayaloo te yàlla suturaal na ma ba tey léegi damay damay damay dugg di diri sama chariot. waaw parce que sa yàlla. parce que man euh, kii lii laa cas social laa woon léegi man man léegi man sama papa suñu bëggoon a nax suñu kër kër gi mu jàkkaarloo ñun ay ay FISAP dafa amoon député bu fa dëkkoon député mais man xale laa mais damay defanteeg doomu député yi. <laughs> dëgg la waaw nan la waaye sama papa defante parce que kooku député boobu moo leen ko jox xaalis doomu député bi du jox dara de eh? sama bu ko député bi waxee bu ko nuyoo day mel yàlla ko nuyu sa waa na sa xol di ci léegi doomu député bi àndee dem ñoom dem kii fu fu ko fii lekkee jaay nu tudd ay ay ay ay ay ay ay fi ñu lekkee fi jaayee ba ko sax amul woon de. waaw restaurant yu baax yi. ah waaw di ba restaurant fi ñu jaayee kii bitig yu rafet. waaw ah, ah, waaw grande surface léegi bu bu demee ñu lay téye doom ji. jëndoo ko lépp man sama papa damay téye jënd ma ci rek soow ci la fukki dina xoolal ci la fukki dërëm soo fukki dërëm soo ko juróom muy 125. loolu metti ma xaw ma woon yaawur yaawur yaawur xam nga foo ko gis si oto mbalit rek laa la ci mbalit yi léegi su ma demee ba su ma demee ba gis loolu sama xol day seet léegi nag moo tax ma dugg Auchan maa ngi def sa publicité ma dugg foofu reconnaître ne alhamdulilahi rabbi alamin bu ma nekkee xale xaw moon yaawur lu ma lekk xale maa koy lekk lu ma fóotul woon la ci xale maa koy fonti mag maa koy de <laughs> loolu dafa rëy lu ma def woon maa koy lu ma def woon ci xale maa koy def fu ma jaarale ak tànk maa ko fa jaarale oto. waaw lu ma sangu woon lu ma sangu woon piscine maa koy sangu piscine. ah. kon nag dama il faut wax sam fi ma jaar jaar parce que man du ma tricher. ka cas la mais ba maa ngi bi mais romb naa turu social. waaw léegi léegi xam nga ni nga mel. waaw ñu réserver la chaise bu royal bi. ok yow yaa ko moom fëggal ko ko tuuti. <laughs> ok C'est bien. Merci. C'est bien. ok ay ah, laaj jàmm ah yow nekkal ci jàmm rek. non jàmm rek dañ lay jox ndoxu rendez vous bi lañ lay jox sax. Ah, yow et puis Pawlish léegi même sa ñàkk des na fa damaa sànni fii. mais Pawlish yow. gars yi am na lu ñu wax ci yow de nee nañu yow fooy dem da ngay wut saabu di ko def sa poche. parce que parce que il faut damay damay bëgg di rafet mais loolu xam naa ki la la xam moo la ko wax. waaw ki ma xam. <laughs> yow li tax nga doxantoog xam ku la xam yow xam nga ma kan moo la xam yow. <laughs> saay Mouhamed xam na ma. waa léegi saabu bi pour lan la. c' est parce que nit il faut am na nit ñuy doxantoo parfum am na ñuy doxantoo am na ñuy doxantoo paaka man sama arme parfum la ak saabu. ku nekk sa arme la. pour damay a boo waree dégg naa boo jëmee ci bërëb boo jubee. léegi boo ñëwee seulement da ngay jënd ndox. mais nag li ma sëlmu yëpp ñaq naa ko mais nag man damaa mere damaa xaw a tuuti ah. moom fi mu dëkk essentiel la yéen ngeen dëkk ci escalier loolu métti ma trop te boo yëgee loolu loolu loolu dama koy dagaan xam nga dama loolu dama koy dagaan Messi ak Neymar ak Chris. Ah. dëgg Bugaan dina xam loolu Messi. Neymar Chris waaw Bugaan dina xam loolu nante la. ah bon balaa suba léegi muy defal essentiel. Eh, eh, mais Pawlish. Ah. rendez-vous moo amul ascenseur mais yendu leen am na. ah mi fii da yëg naa fi metti voilà yenn leen naan na trop bugaan dafa ci essentiel xam nga loolu mën nga ko tamit def ko dafa essentiel <laughs> mais Mbaye <laughs> Pawlish jërëjëf kontaan nañ ci yow hmm. léegi naanal sa ndox xam nga vraiment nga nga cool quoi ah. Mhm. coolal eh. parce que yow buur nga yow. ah non ah ah. il faut pas qu'il me fasse des clins d'œil des petits eh, eh. ah non. mais c'est c'est parce que mais mais mais mais ah. ah. parce que ah non parce se sont croisés tu m'as fait un petit clin d'œil.